Mouhamadul Fadal waxoon Serigne Cheikh Thioro loolu ku ne teg na ci bëtam te day gën a wëy day gën a wëy day gën a wëy lii fi xew rek wane na kon nag dëkk gi nii boo xam ne bu mat a fonk la bu mat a jàpp la bu mat a bàyyi xel te boo fi ñëwee nga xam li la fi indi lu mu bokk yi ku mën a xalaat li Serigne Touba daj ak fi mu jaar ci àdduna ba yàlla def ko nii mu ko def may ko lii mu ko may nga man di ko nettali te doo ruus parcours bu rafet de Serigne Touba am na ñoo ci seen i dëkk lañ leen fekk def lañ lañ leen def fii la Serigne Touba génn jaar nii dajeeg nasaraan bi fii ci jeewal tey jii ana kolo ana ana gouverneur ñu ngi fii ana ministre yi ñu ngi fii ana gendarmerie ñu ngi fii te kat su keroog la daam rañaane bari fajari gaaw bu maxal labraari dajeeg Touba ba jeewal yet lu foofa fanaan fa boo dee rëy na du ko siiwal tey ñoo ñooy gàdde siti Serigne Touba yi ñu di leen liggéeyloo ñuy liggéey ñu di leen yónni ñuy dem ñu di leen ñuy def loolu jëf jooju te boobu góornóor bu la convoqué nga bàyyi loo jàpp waa kër sëñ Tuubaa woo góor noonu mu wuy si leen waaye góor noonu la daan woote ñuy wujj liggéey yàlla mu dul ay caaxaan jeewale ngi nii soriwul campement la fi la tubaab bi di xaar ci Amadou Bam jiital gouverneur Louga muy Leclerc jox ko ordre Ahmadou Bamba mii nañ ko jëli te bu dëgëree bopp dëkk boo leen ko fekk tàll leen te jàpp dong indi xam ngeen ne Mbàkke bari Sëñ Tuubaa ne la fi laa aaroo moo tax xam nga ne bal takku fi waaye tubaab bi jëloon nañ décision ñëw Mbàkke Bari pour jéem ne dañuy jéem a ñëw ci si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul boo demee jeewal googu fa la yendu fa la jullee tisbaar fa la jullee takkusaan na ko boppam ci sa Alxuraan te tubaab bi ordre ko joxoon mooy bul yend bul fanaan keroog bi ko lekkilee roursier mu woon ko ginnaaw jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim mu ne ko ordre bi mooy bul yend mu ne saa borom fanaan ne naa fanaan moo tax ku yaakaar sañ Tuubaa waroo ragal waroo yox yoxi waroo tiit lastu axaafu durra xalqin ba'da ma fawaltu amri ila rabbi sama ba ma wéeroo ci yàlla du ma ragal benn loru bi kenn ku ko fa nekkal carte ñu wër ko cercle ko teewul mu sànnib daram kàbbar naa fi la julli ay waxtoon loolu la ko Cheikh Ibrahima Diop almachar yi bind tàmbalee ko ci fii xarajta min jolofin lillahi fi safarin akrim bihi safaran xat xaasa kulla yeddi xarajta fi sabti fi shahri rabihu doxa bi jay sati wala jeewal jig ta lay sanati ba nga ñëwee mel ne gaynde gooy ba ngeen fii la sëriñ bi waaje woon kon Mbakke Bari boo nit naan dara jig na ma man nga ne Mbacke Barikoul jig na Serigne Touba ndax ba mu fi jógee dara tëkkul ba mu ànd ñoom ba kokki bi kokki xil ta wa jig te baax da Louga wa fii safinatil bar kat saa fat sa sada bi yendu fat ngoon jot mu julli takkusaan dugg saxaar wuti Louga luti ndar dafa 38 jours te tey toppat parcours Serigne Touba ngi nii amul fooy teggi ne fii kat sëñ bi dafay dellu ginnaaw wala fii dafa nangam gis naa ci karaamatu Cheikh Ahmadou Miski Cheikh Sidiye nee bokk na ci li ma gën a yéem ci karaama yi sëñ Touba yàgg gi mu yàgg ci nasaraan bi ak seen soxor ak seen wawu xol te sëñ Touba mës sa jëf lan loo xam ne histoire bu ko nekk leen tey kenn tiit fi ne ba adduna tukki bu tubaab bi xamoon lu mën a publier ci sëñ Touba neexu ko de kenn toog ca kaw ñii toog ci suuf boo ne diw mu ne mbakki wala diw mu ne fàll koo yónni mu dem koo liggéey lu mu sant la loolu buñ amoon luñ publier yi ci sëñ Touba ngir nit ñi découragé publier nañ ko ñu làqatu ci ginnaaw écran yi yëpp buñ amoon luñ feeñal feeñal waaye kalla wala yu dal lisul mutaxara xawlu sawi danasi maa tataxara sëñ Tuubaa kenn mënu koo gàttal kon nag dëkk bii ku ko fonk sa bopp nga fonk di ñuy dugg see léegi gis ni mel ci ay gàddoom sëriñ Cheikh Thioro jërëjëf jërëjëf adduna dafa xew am na ñu may gis léegi tooñ leen fii ne leen waaye lakki bayri sëñ Tuubaa ngeen ñëw wala joj pasiyef am na ñu ma ko laaj ñoo xam ne maa leen ko laaj boo gisee may wax loolu mooy damay bañ ñu jàpp ne sëñ Cheikh day tay ma ak moom ma ak sëñ Cheikh yàgg na sëñ Cheikh ma moom ba muy doon sama waay am na ñu ngi mu doon seen waaye nag moo tax man laaj sama benn waay ma ne ko yow Touba sëñ bi nga ñëw wala jot Pastef waaye damay bëgg ñu xam ne li may wax daal jiitu bala ma ko kenn commentéral naan gànna léegi dafa nangu déedéet man fii laa nekk sëñ Cheikh sama xarit la sama sëriñ la waaye dama ko nawee dara dafa box ne ko ku bokk ci sëñ Tuubaa yi buñ la tuddee ci ngor ak jom loolu rek nga war a mel daj na lu ne te wanewul dégg na lu ne te wanewul te gisuma ku mu ko reeni te gis nga ku baax day yor wenn melo yor jikkoy kàkkatar baaxul lu bulaak lu xong ak wert nga xam ne meloo nen loolu dal daal lu nuru nga nuru ko baaxul ku am jubluwaay la ku amul doxul ku fonk fi mu nekk la ñoo ngi ko ci sant di ko gërëm sëñ Cheikh yaag ñi nga àndal te nun ñëpp xam nañ ne réew mi Sénégal bu ndee jàngat Sëriñ Tuubaa borom dëkk bi El liñ ko tooñ tooñuñu ko kenn liñ ko xañ ci ay xaq xañuñu ko kenn liñ ko xañ ci ay droit xañuñu ko kenn atte nañ ko te amul benn avocat bu koy plaidel te koy tuuma te teewul ba demee ba ñëw dane afawtu anil aadai turran li waci man nafahum li gayri sarmadan lastu adfa ñi ma tooñ ñëpp baal naa leen ba egg ci bind wax ne képp ko gis mbind mi na xam ne ku ma tooñ baal naa la du ma ñaan yàlla ku ma tooñ te li may yéene ki aju ci man laa yéene ki ajuwul ci man yaakaar ji nit ñi am na ci yéen yàlla na yàlla jàppale leen bam sotti ndax kat duutu yéen ak dong yéen ak waa réew mi yaakaar ngeen am waa réew mi bañ a yàkkamti bu fekkee Sénégal la intéressé léegi-léegi ma wax ko yenn gars yi ñuy kaas réew mi nanga ma leen nit bu jàngul amul métier ba nag bëgg a tedd dana sonal nit am réew du liggéey di jox kenn ngay def ci sa poste yi wëndeelu lan di représenté ban position nga yor ban sart lan mooy sa liggéey waaye dana baax ak dox di wëndeelu am solo ñi toll ci war a liggéey ñu jàppale leen ndax ku ñu war a jàppale boo ko jàppalee fa mu war a yegg mu yegg te nit ñi ñaanal leen te ñu wàññi écran yi te wàññi taf nit ñi te ngeen taxaw ci te ñu wàññi yàq deri nit ñi ak lu naqar ne nga jikki di live lu la neex wax tooñ nit baaxul wax naa ko Serigne Cheikh benn ma ne gis nga nit bu xeexee ba am na muy ba noppi lam doon bañ day fexe ba kenn du ko def ci am na ñoo xam ne ay ruubekat lañ ay sobootekat lañ ay yàqkat lañ yàlla na yàlla dëgëral leen na yoon wii ngeen tàmbali ku ñëw mbakki bari gii xool li mu mel fii yaakaar naa ku ma seyoon oto bu ndaw boo ko fi bëggee indi da nga am problème fii nag ku fi def da nga xam ne def na ndax fi la sëñ Tuubaa waxee woon buur la nga koy wax fi la sëñ Tuubaa ñaane woon lam bëgg suuf si képp boo fi tegee sa tànk am pas-pas eggoo ci sëriñ Cheikh mi gisoo ko tabbiwoo ci néeg bi waaye teg sa tànk am pas-pas loo ci fas moom te confiance la réew mi la leen réew mi jox Sénégal nag daa naqaree di jënd te Sénégal bu gisee ku njool danaan xoolal dim guddee boo gàttee mu ne sa waaye da ak tumale nga xees mu ne waaw kii moom xanaa siini wala nga ñuul mu leen li mu kukkee ku mën a fexe ba duñ ànd ak yow amul waaye ku mën a fexe ba duñ la ŋàññee doo amul noo mën mel ñu wax la dara waaye yaay xam fi nga jëm ak li nga bëgg njabootu Sëriñ Tuubaa gi buur falu te buur mënu leen a fond te buur mënu leen a yàqal ndax Serigne Touba dana sama barke bi barakati waasi'atun wa baaqiyatun baqaa mulku si libaat sa sama barke day sax te du fi jóg mukk kon orientation yi Serigne Cheikh di def te boole koog dal boole koog yar boole koog teggin Serigne Cheikh li tax mu baax fi ne fexe boo jokkoo mu mu yàq dalu kenn boo ko jotoon di wax ak moom ah gaa yi doy leen waar Serigne Cheikh du weesu la gaa yi doy leen waar daal di ree waaye ñaan leen de baat bi de man laa yàgg dégg sëñ Seex gars doy nañu waar waaye ñaan leen waaye am na ñooñu boo leen jotoon dong ñu yàq dere nit ku baax nag noonu la mel boo àndee am li bëgg danaa la woon ne may sa a jege Serigne Touba ko yal la yàlla jàppale yal yàlla sàmm yal na la leen jàmm te ñuy yéene yëpp mat koo àggale képp ku leen bëgg a gàllankoor it yàlla na ko yàlla gàllankoor ndax nun kat bëgg nañoo am jàmm sonn nañ ci daqe bi ak daw bi ak xeex bi ak couvre bi ak tëj yi ak sore yi waxoon naa ko ci benn conférence gars yi na gànn daa am ñu bi gaarawal ba ne leen benn waaye de dañ ne ko yow seen jàngi dëkk yi ren daa amul mun a ko déedéet ñun suñu jàngi dëkk amul ndax ñii jàpp nañ leen ñii dem nañ ci gaal gi amatuñ nitu dëkk dinaa ñii jàpp nañ leen ñii kii amatuñu kon nag ginnaaw ñëw ngeen fi occasion la te man ci laa bokk Mbacké Bari 2005 laa fi tàmbali li tax ma di ko wax it dama see amul xarit boo xam ne dafa nit seen biir muy Serigne Cheikh tamit gor soo xam ne am na lu du ko wax Serigne Cheikh ay bokkam la jëkk a jubóol dafa man man ak ñoom fonki baayam fonki magam fonki tax ngeen am buntu bii nga fi ne luy mbakke bari lu bokk ci mbakke bari ñëpp leen jàpp ndax bi sëñ Cheikh mel bu sëñ Cheikh meloon neneen am ñu leen opposé ndax dañ naan Cheikh kat fonkul kenn waaye sëñ Cheikh moom bi ngeen ko xasee téye am ngeen ñëpp jikkoom ju rafet nag moo ko may am nay bokkam am na ñëpp fonk ne leen moo tax fi nañ yi ngeen gis ñëpp koo ci xam ak koo ci xamul boo leen yëgee boo leen yëgul jàpp nañ leen bëgg nañ leen ndax ni ngeen def sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh it moo wane loola ba mat moo tax mu mën a am kon na ngeen lu balaq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu